jeudi 18 avril 2024 ñu ngi di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaar fi ngeen mën a nekk ci réew mi bitim réew di wétali ko 7TV télé bi ñu nuru ba noppi du dajale ñëwaat nañu amaan mbégte fas yéene ànd ak yéen ci l'avant-première de la mi-journée El Hadj Mela di di Adama ko ziyaar di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu suñu gan bi. jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert Adama Fall noo def. Cissé Maria ñu ngi lay nuyu. di di di di waaw xam nga maa ngi yow dañuy man a ma jaaxal dañuy déggoo quoi ci kaw. Euh, bu fi nekkoon fi mu ne nii danaa dañoo déggoo voilà day commencé wax moo tax ñu ngi koy nuyu Birama. <laughs> noo def bon bon ça va sant yàlla. alhamdulilah euh, di nuyu doyen. comme mm. d'habitude di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam may ko gudd fan ak wér ak wérle bàyyi ko xel ak xalaatam mu mun a ànd ak ñun ci barke Seydina Muhammad di nuyu suñu suñu suñu invité mm-hmm. voilà jërëjëf euh, Adama Fall ko defee ñu àndandoog suñu invité du gan ci kër gi borom waa kër gi la ñu ñoo ñoo ñoo far c'est un plaisir de vous retrouver monsieur Montey ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax baax plaisir est partagé si sa Maria bu baax jërëjëf di nuyu doyen Mamadou Sy Albert di nuyu Adama mm-hmm. euh, di wax ne que Birama manqué na ci plateau bi. waaw manqué na parce que fan yi moom am naa jàmm tuuti moom fan yi moom am naa jàmm kenn du ma tooñ. <laughs> muy loolu euh, bu ko defee ñu daal di wéy ni ñu koy defee itam saay bu ñu xëyee xam ngeen ne on a eu on a accusé ñu ngi ciy jéggalu bu baax baax ci mbokk téléspectateurs yi nañuy dem àndandoo waa Régie xool li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee tey dellu si waat. ayca la tribune la ñu tàmbalee tey. le président Bassirou Diomaye active l'IGE l'OFNAC et la Cour des comptes ça moom lu jar a waxtaanee la à <laughs> quand la vérité sur ces affaires ok le conseil des ministres kooku du Adama Adama bàyyi ngay def <laughs> les grandes décisions du chef de l'État le soleil waa ça moom ça moom vraiment man daa am son bu may dégg ci suuf te xaw ma fu mu jógee ah man da <laughs> les grandes décisions du chef de l'État alors ça c'est un conseil des ministres on va revenir ak lan ak ñu dem beneen c'est le soleil ñu dem ci beneen Vox Populi Diomaye fouille partout mhm. <laughs> jëli lancé ok président Diomaye Faye ok avant de partir Macky avait ah dama liiral foofu. avant de partir Macky avait. rendu à Sonko son parti. rétablit le parti de Ousmane Sonko dans ses droits. ah bon. c'est le décret signé le 27 le 27 mars. mars. ah oui c'est c'est le 27 mars ok d'accord on y va enquête Diomaye fouille la gestion de Macky ouais. <laughs> d'accord tey moom nañu ko def fast track rapidement ñu dem. ok c'est bon ñu dem ci beneen. le témoin quotidien Diomaye imprime déjà sa marque. Mmh. Mmh. ok ça c'est Mamadou Omar Ndiaye d'accord ñu xool beneen. la machine s'emballe l'info. Mmh. c'est à peu près la même chose hein. après le conseil des ministres hier moom un chapelet de mensonges ça c'est critique critique critique tord le cou au protocole ah bon il tord le cou au protocole d'État ah <laughs> les histoires ah ah. des femmes de di leen ci arranger rek la gars yi di jël ñoom Adama Fall yi ñu dem beneen <laughs> sale temps pour les magouilleurs ah oui ça moom c'est vrai Libération la bamboula des sorcières des sociétés ah ouais explose exposé. ci yàlla Limak et Souma. Limak et Souma waaw. ce n'est pas seulement assistance la. pour ñu xam ko <laughs> pour ñu xam ko. c'est deuxième. waaye bés bi le jour les audits waaye. <laughs> comme toujours dañuy def jeu de mots. oui c'est ah, ah bi ñu ngi ciy wax ak yooyu. l'eau ak ay voilà. en tout cas. Mm, mm, mm. li ma leer démb ci conseil des ministres bi daal la vérité des faits ok direct news. par rapport au port. Mmh. expose les cafards de l'ancien régime ah la publication des rapports des rapports. Oui, la publication des rapports man moom am lu ma ciy wax après. ok L'As quotidien l'observateur le régime de la délation Diomaye fouille Macky <laughs> avantages et limites appel à candidature dans l waaw ouais. Mm-hmm. avantages et limites d'accord ok ñu dem le pouvoir se trompe de cible. Ils ont augmenté l'assiette fiscale. Pour... Oui, allergissement de l'assiette fiscale. Ah bon? Comment ça? ayca mu ngi noonu doyen Mamadou Sy Alba. donc euh, actualité bi moom c'est toujours euh, Diomaye euh, mooy en en vedette. Mm -hmm. le conseil des ministres jël na ay décisions. décision am yu am solo am mhm. auditer euh, la présidence de la République euh, def auditer aussi les sociétés nationales wala sociétés parapubliques bon euh, deuxième catégorie de mesures yi c'est publier les rapports qui sont déjà faits par les cours de cours de contrôle mhm. bon c'est des décisions politiques phares mhm. maintenant nu ñu koy rendre compte pour moi on est encore euh, parti pour du sensationnel Ouais. Ah, euh, il y a la fouille, il y a euh, le, on lève le coude de Macky Sall. <laughs> bon, ça c'est la presse sénégalaise. Elle aime le, le, le sensationnel. Ouais. Mais, mais je pense que justement, à mon avis, le gouvernement doit éviter le sensationnel. Mm -hmm. ah, que on est, on est dans, la, dans, la, dans la gestion. Et la gestion quand même dafa am des, des normes. Mm -hmm. Hein, ah, y des normes administratives, des normes techniques, des normes de gestion. Euh, c'est là le débat de fond. Mm -hmm. ça euh, état gestion Macky Sall loolu lu ko war la ah, loolu la diggee ci élection présidentielle loolu la diggee ci discours à la nation loolu la diggee administration bi qu'il pour la la la transparence donc euh, transparence bi il faut mu njëkk euh, bi mu war a njëkk donc mooy mu xam quel est de la gestion du régime antérieur loolu euh, def naa lu ko war la bon maintenant deuxième aspect bi c' est comment utiliser comment comment quelle démarche je pense que démarche boobu daal euh, jar na quand nit ñi taxaw ci bon euh, parce que du du gulet bon que que Abdou Diouf def na ko Wade def na ko Macky def na ko sa régime bu ñëw fu muy commencer mooy les audits. bon mm-hmm. fu muy commencer mooy lutte contre la mauvaise gestion contre le détournement des deniers publics cetera mais pour man jar nañu taxaw parce que ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait par exemple la corruption euh, mu ngi gën a yokk ça fait partie aujourd'hui des maux de la gouvernance de, du Sénégal corruption mu ngi gën a law Euh, du état bi rek du ministère bi du tous les services sont touchés par la par la corruption mhm. donc baax na c'est vrai ñu xam lu xew mais comment faire pour éviter le, pour arrêter la la la, la corruption defe naa loolu laaj na quand même euh, une approche beaucoup plus euh, scientifique beaucoup plus apaisée et heureusement avec euh, l'honorable député moi j'aimerais quand même débattre ou même poser la la question. Mm-hmm. c'est-à-dire qu'il y a les corps de contrôle loolu mooy seen rôle. Mm-hmm. mais ça reste toujours euh, à l'intérieur de la de l'administration. Mm-hmm. ça c'est des contrôles internes. les rapports sont aussi des rapports internes et à, euh, euh, on les diffuse mais on ne voit pas l'Assemblée dans ça alors que l'Assemblée quand même c'est le pouvoir législatif. et il a aussi la, la, la prérogative de contrer l'action gouvernementale. Mmh. Bon, quel est le lien qu'on peut établir entre l'Assemblée et la, et la, la, lutte contre la, la corruption L'Assemblée, quand même, warna am, je crois, possibilité, comme moi, auditer le gouvernement, am la capacité de faire des commissions d'enquête parlementaire. Est-ce que les grands projets de l'État, parce que c'est ça notre faiblesse majeure, fi ñuy détourner c'est en général les grands projets de l'État foofu la ñuy tibb xaalis bi hmm. est-ce que assemblée waruñu ko ubbil bunt foofu pour euh, pour que ça ne soit plus seulement entre les techniciens et les ministères que le pouvoir législatif quand moom moo représenter askan bi hmm. un regard parlementaire je pense que ça équilibrerait davantage euh, la, le, le, le, le jeu et puis peut-être que transparence bi aussi mën na mën na ci am su fekkee assemblée dugal na loxam ci euh, la gestion de des des biens des biens publics mm-hmm. euh, je crois que c'est bon c'est la dominante au niveau de de de, de l'actualité bon maintenant beneen question bi c'est euh, euh, est-ce que est-ce que l'administration actuelle comment comment on devrait renouveler la l' administration c'est-à-dire que am gouvernement bu bees ministre yu bees bon administration bi comment elle devrait se positionner dans les cinq ans à venir mm-hmm. est-ce que day am bale est-ce que est-ce que Diomaye day <laughs> dégager ñëpp ñëpp bale bi ah bale bi <laughs> est-ce qu'il va balayer mm-hmm. bon suy balayer comment il devrait balayer euh, je pense que ça aussi c'est une c'est une question mm-hmm. voilà kon mooy maa ngi wax léegi par rapport ak euh, li nga xam ne moo di conseil de ministres hier ils ont parlé de surtout ndox assainissement bi ils en ont parlé mais surtout de revoir aussi les contrats avec par exemple euh, Sen'Eau SONES ak entre entre entre autres mu nekk yenn yoo xam ne dina dina compliqué et aussi pour le pour pour la fonction publique que ñu fexe ba ñëpp mën a jot ci mën a ñëpp mën a mën a mën a déposer mën a jot ci yenn yenn yenn yenn liggéey yi on attend de voir mooy wax la sénégalaise lambda bi ma liiree conseil des ministre bi démb xaw na dal sama xel on espère simplement que dina dina dina demee noonu Adama Fall. oui Maria. Mhm. profité nuyoo Abdou Aziz parce que moom sama xarit boobu ñu koy nuyoo Abdou Aziz. di ngeen ñu àtte de. <laughs> kenn ngeen àtte Abdou sama xarit la nag. parce que moom it aussi day toppee quoi. day day day topp ba moo am surtout Sow Sidibé entre ah, autres ah, grand Doudou Wade ñoom ñëpp vraiment. maintenant. la mhm. presse est revenue sur le. sur le sur le communiqué numéro de du conseil des mmh. euh, mmh. de Sonko 1 du Diomaye du président de la République Diomaye c'est normal parce que aussi euh, le premier conseil des ministres une prise de contact mmh. joxe les feuilles de route gars yi dem ñu def passation de service bi gars yi ñoo toog mu joxe les orientations c'est-à-dire fan la bëgg jëm et qu'est-ce qu'il compte faire mmh. communiqué de compte des conseils des ministres il des orientations yoo xamante ni génn na ci te presse bi moom la wax Euh, wax ci wax li nga xam ni moom la bëgg a andi comme innovation wax lan la créer au niveau de la présidence wax lan la bëgg par rapport au niveau de de de recrutement des des projets de loi qu'il faut faire des décrets pour quoi qu'il faut faire préparer pour certaines choses la mise en place des des conseils interministériels mm. pour préparer la tabaski pour préparer le l'hivernage pour préparer pour préparer pour préparer mm. les examens tout ça mais pour man am na lu ñu fàtte. maanaam. mooy le conseil ministériel pour la baisse des prix des denrées de première nécessité. conseil interministériel. oui conseil interministériel pour la baisse des denrées de première sur la eh, cherté de la vie. ils en ont pas dire pour rappel pour rappel le avril mhm. ci le président Macky Sall defoon conseil interministériel pour sur la cherté de la vie. Mhm. le 20 ñu wàññi prix yi. cest dire dans dans les ordres de priorité. sur le mun naa sax parce que ça c'est le premier conseil des ministres parce que si lay joxe les orientations peut-être am na am na loo xamante ni peut-être euh, am na ci ay manquement mais maintenant c'est normal parce que la presse aussi seen taxawaay noonu la war a mën a doon et aujourd'hui pour une première fois aussi rarement ñu gis une tey waxuñu ci ay ay faux ak ay aujourd'hui on a vu que waxuñu ci donc ça veut dire que peut-être dégg nañ suñu discours ba ñu ngi def liggéey bi ba gars yi mën a téye. Mhm. donc parce que aussi on peut tout le temps dans un pays boo xamante ni. dañuy jàmm rek nekk ci loolu. Mhm. maintenant attendons de voir par rapport à aux orientations. ñi nga mhm. xam ni moom moo ci moom lañ joxe ci conseil des ministres bi parce que nit ki mën nga bëgg may defin bi xaw a jafe. maintenant nag sur les audits pratique républicaine la c'est c'est normal c'est que nit mënoo ñëw ñu jox la structure bu bees te doo càmbar la fa mooy mooy yoon sax mooy yoon ku ñu jox kuréel bu bees di nga ko càmbar. Mhm. donc du loo xamante ne la peut-être li ma jàpp comme sensationnel bi ni ko doyee waxee du loo xamante ni dañu ñëw pour pour pour pour pour casser. ni li ñuy def mooy yoon. voilà mais li ñu def li ñu def moom la ñu war a def. loolu mooy yoon. cest gis nga Maria cette TV bii suñ la joxoon direction générale di nga saytu lu fi ne. te ñaata caméra ñaata chaise personnel bi ñaata la. Mhm. yan niveau la ñu am pour nga mën a xoolaat les profils loolu c'est c'est c'est et puis tous les la fay font. Mmh, le font tous le font. Mmh. donc loolu kenn du ko bañ. Mmh. donc saa euh, saa ça entre dans normal des choses. mais bon puisque presse bi moom dañuy def ci sensationnel. aussi les rapports yàgg nañ ko publier bëggoon naa ci ñëw waaw publication yàggoon nañ yàgg nañ ko publier maintenant euh, ban ban jumtukaay lañ koy def. ci naka lañ defee waaw ak naka lañu koy defee mhm. pour éviter vindicte populaire ak yenn conséquences waaw ak yenn la war fâcheuse la war a am par rapport à la population ça aussi war nañ ci mën a réfléchir parce que aussi publier rapport ne ba pas dire euh, mettre en mal certains par rapport à la population donc yooyu aussi on attend de voir on attend de voir daal merci Sista

2022 moo war a ñëw ak 2023 mhm. ce rapport la s'il n'est pas publié l'Assemblée nationale ne peut pas voter le nouveau budget parce que moom rapport boobu euh, la loi sur la organique sur la Cour des comptes daf ko organiser sur quatre points ñett ñeent lay def premier bi il doit contrôler l'exécution régulière de la loi de, des de finances. Mhm. deuxième bi il doit contrôler Euh, elle doit contrôler euh, les comptables publics troisième bi dafa contrôler le secteur parapublic mmh. maanaam foo xam ne euh, état bi dafay def xaalis quatrième bi moom mooy jël sanction yi sur les fautes de gestion mmh. donc le rapport euh, d'exécution des lois de finance chaque année day ñëw assemblée nationale mooy tax ñu mun a def ce qu'on ce appelle la lois de règlement donc Cour des comptes mooy saytu loi de finance budget bi ñu voté daaw mu xool est-ce que gars yi exécuté nañ ko niñ ko war a exécuté ñu jébbal ko assemblée nationale assemblée nationale doog mu ne a voté loi de règlement. fi mbir mi sooxee mooy que ne document yi kenn du leen lire mooy li doyen wax léegi. c'est-à-dire assemblée nationale euh, daanaka euh, ci période période boobu diggante bi rapport bi di génn ak bi ñuy def euh, débat d'orientation budgétaire waroon nañ di mun a convoquer. ministres yi tous les mois wala toutes les semaines parce que règlement intérieur moo ko wax moo ko may assemblée nationale ñu mun a sur les grands programmes ni mu ko waxee ñu mun ci débattre publiquement askan wi xam lan moo ci nekk naka lañ koy exécuter ñu mun ko suivre ñu saytu ko bu baax mais assemblée nationale Sénégal rek ngay gis ñuy liggéey 60 jours courte 60 jours la ñuy liggéey entre ouverture pour def euh, li ñu wax loi de finance bi bu jeexee de temps en temps ñu oo ñu ñëw voté benn loi demat seen yoon alors que toutes les semaines ils devraient être là-bas. Mmh. convoquer ministres yi. waxtaan ak ñoom ci li gouvernement bi bëgg a def askan wi jot ci. donc boo gisee euh, rapport yi cour des comptes bu cour des comptes defee benn rapport sur sur sur sur le truc nu ñu koy waxatee sur les lois de finances jagleel ko assemblée nationale. Euh, Euh, nu mu tuddati commission euh, euh, non budget commission finance et contrôle budgétaire xooluñu ko kenn xoolu ko noonu lañ koy jëlee teg ko ci seen bureau mais personne ne lit les rapports alors que y a des recommandations parce que ñetti document lay produire buy buy contrôler loi de finance bi njëkk a produire rapport bi def avis de conformité après def avis sur les rapport annuels de performance parce que comme ci budget programme lañ nekk chaque ministère dafa war a pour chaque programme produire ce qu'on appelle un rapport annuel de performance rapport annuel de performance boobu dañ koy jagleel Cour des comptes mu saytu ko xool est-ce que normal na mais ñaata ministère ñoo fi am ay programme à milliards te produiruñ dara boo demee ci rapport deux mille vingt deux mille vingt et un bi ministère des affaires étrangères produiruñu ministère de la pêche et de l'économie maritime produiruñu y a tellement de ministère yu am ay programmes yu dix a dix a dix et ils le rapport Euh, annuel de performance cour des comptes nag daf koy wax mhm. mais comme ni ko doyen waxee après quand la des comptes demande des sanctions c'est pas la cour des comptes qui va mettre quelqu'un en prison et qui va aller prendre quelqu'un mmh. yi ñu ngi fi de mhm. lan la ñuy def ci rapport yi c'est c'est c'est de ça qu'il faut qu'on parle mhm. euh, man il euh, y une chose qui est très intéressante des bu ma dégg ci ci ci ci conseil des ministres c'est le bureau euh, d'intelligence et de prospective de prospective Sénégal ci loolu lay sooxee c'est-à-dire xool Sénégal sur cinquante ans sur cent ans. Mm-hmm. boo demee ay dëkk comme ay États-Unis da ngay gis ay agence yu mel ni Booz Allen Hamilton ñooñu dañuy conseil le président des États-Unis il faut des des projections sur ans. Mm-hmm. par exemple ndox mi ñuy wax ni tout le monde sait que la prochaine guerre mondiale ce sera l'eau Ouais. L'eau, c'est l'enjeu mondial avec le changement climatique. Mmh. La maîtrise de l'eau. L'agence pour la maîtrise de l'eau, bu mu créé nii, mais c'est d'une importance capitale. Les gens parlent de littoral, les gens parlent de de de cours d'eau, les gens parlent de vallées fossiles au Sénégal, etc., etc. Il faut qu'on se penche sérieusement sur l'eau. L'enjeu, pour la nourriture mondiale de demain, ce sera l'eau. L'eau pour l'agriculture, l'eau pour, pour, pour, pour l'eau potable pour boire. soo maîtriser wu loolu tu sors du circuit mmh. <coughs> donc quand il met en place ces deux ces deux trucs là moi je pense que euh, il est sur la bonne voie il est sur la bonne voie mmh. et c'est des choses hyper importantes maintenant il faut vraiment les articuler de telle sorte que Euh, mu nekk quelque chose d'efficace. mais quelque chose d'efficace parce l'intelligence euh, économique. du suivi évaluation des programmes. boobu sax amoon na. Ah. boobu sax amoon na peut-être que tur bee changé rek mais boobu amoon na parce que y avait un euh, ce qu'ils appelaient le le boss. le boss au niveau de la présidence ñoom ñoo doon suivre les programmes du PSE. en tout cas daal je pense que cette prospective là cette projection sur le futur. xool Sénégal fan la war a jëm parce que tout tout yëpp ay articulé ah. même les histoires de renégociation de contrats pétroliers et tout ça. tout ça ça va être articulé. parce que euh, suñu faiblesse ñun Sénégal c'est que dans les négociations ou dans les les aspects techniques de certaines choses on met en avant des politiciens. Mm-hmm. alors que dañ ko dañ ko war a jox ay experts ay nit ñoo xam seen xam-xam dafa màcc ci mbir mi. Mm-hmm. donc booy def intelligence économique. donc ko jox politicien très certainement da nga koy jox ay ay ay ay ingénieur ay financier ay gars yoo xam ne xam nañ liggéey bi ñu lay analyser di def veille di teg ay stratégie di xool euh, le di analyser risques yi et cetera et cetera comment le politicien peut être le politicien peut être un grand technicien mais le politicien il est toujours biaisé par ses ambitions politiques mm-hmm. c'est ça qui qui qui le freine mm-hmm. parce que au lieu de faire les choses Euh, de façon généreuse généralement il le fait pour des gains politiques. Mmh. et ça c'est c'est quelquefois dangereux. Mmh. alors le président de la République a insisté aussi sur l'urgence Adama Fall mooy li nga doon wax léegi de finaliser le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs de souveraineté dans les domaines économiques mhm. culturels sécuritaires alimentaires monétaires numériques et pharmaceutiques tu as qui parlé d'alimentaire souveraineté alimentaire oui loolu les priorités. loolu ci la bokk dans les deux premiers. ils en ont ils en ont parlé. alimentaire moom c'est on va y arriver incha on va y arriver alors euh, doyen Mamadou Sy Albert man man élargissement de l'assiette fiscale. Hein, que la publication des rapports moi j'ai peur comme ni ko euh, kii waxee j'ai peur que mu jaxase dëkk bi par rapport aussi aux lanceurs d'alerte man dama koo xaw a ragal. Il a quelqu'un qui a dit hier quelqu'un a dit hier je pense ne mun na indi nit ñi ci ay procès wu pour diffamation yu dul jeex je sais pas. que euh, le problème qu'on a avec le le gouvernement euh, l'honorable l'a dit. Mmh. c'est-à-dire qu'il est sur le bon chemin. en mhm. vouloir la la bonne gouvernance euh, la transparence euh, la probité bon mais. daf ko éclater en plusieurs actions et la difficulté euh, que le gouvernement risque d'avoir mooy li mu wax c'est-à-dire comment articuler les les actions là mooy mooy le plan le plan c'est une somme euh, d'actions mm. mais su amul articulation euh, par exemple si les gens ont peur de l'audit ils ont peur de la publication des des rapports ils mm. ont peur de la délation mais c'est parce que tu as mal communiqué Ouais. Parce que ce n'est pas l'objectif que tu cherches. Tu ne mm-hmm. cherches pas à faire peur. Mm-hmm. Tu cherches à mieux gérer. Mm-hmm. C'est une mauvaise communication. C'est communication. Parce que tu communiques sur la peur, sur la, le presby, l'olmoy danger, elle communique sur le sensationnel. Malheureusement. Donc, il faut que le gouvernement apprenne euh, une chose là. C'est-à-dire que le départ, c'est le plan. Ouais. Le départ, c'est vraiment que man, je fais l'État. l'état réel du pays. Ça, tout le monde sait que on attend le président dans deux mois, trois mois, il va nous dire quel est l'état du Sénégal. muy économie bi muy gestion des lieux. Mhm. Mhm. mais deuxième objectif bi ñu xaar ci moom mooy que les actions. Mhm. ba am il faut qu'il y ait des priorités. par exemple <clears throat> l'honorable a raison ça on a parlé de l'eau. mais mais nit ñi lu ñu jàpp mooy ndox rek. tu n'as pas communiqué sur l'enjeu de l'eau ouais. c'est même la guerre je parle même pas de la guerre c'est la denrée la plus essentielle dans nos pays là mm-hmm. moo ëpp moo ëpp enjeu ceeb diwlin suukar et cetera c'est c'est un enjeu de survie il mm-hmm. y a, il y a des Sénégalais qui n'ont pas accès à l'eau mm-hmm. à l'eau l'eau potable si je prends le cas de Touba on l'a entendu hein ouais. que que c'est un gros problème bon soo demee aussi dans euh, la, la politique dans la politique du gouvernement c'est-à-dire mënoo am souveraineté alimentaire sans maîtriser l'eau mmh. donc il faut communiquer sur la question de l'eau nga gis nag maintenant les articulations c'est-à-dire que tu as besoin de l'eau pour euh, la euh, pour cultiver pour vivre bah, peut-être aussi pour avoir des réserves dans les quinze ans vingt-cinq ans donc la question de l'eau c'est une priorité deuxième priorité bi ñu bi Adama junj na ko sax c'est la question du des conditions de vie des Sénégalais. quand même les, prix le le pouvoir d'achat le respect des engagements du gouvernement. donc hmm. pour man. le euh, loyer si tu veux le, le loyer. donc il faut que le gouvernement arrive à à mettre en place une vision de son plan. si tu as le plan et que nga résoudre les questions des articulations. parce parce que le développement c'est pas que euh, am na ndox rek pare na non. non hmm. ndox dafay ànd ak béy. Hmm. agriculture dafay ànd ak industrialisation. Hmm. dafay ànd sécurité. donc c'est toute une chaîne qui est à l'eau mais suñu gisul les articulations tu vas te perdre. tu vas tu vas disperser l'État dans ses actions. donc ça c'est les articulations entre les les, les priorités là c'est pour te dire que pour moi l'erreur qu'il faut éviter c'est que le gouvernement mette le Sénégal sous tension inutile mmh. c'est affaire bi du du c'est pas arrivé une chasse 2012 c'est pas il faut il éviter que que les gens tombent dans dans euh, travailler sérieusement sur les, sur les audits, sur la publication des rapports. Euh, L'objectif, c'est d'arriver à une meilleure maîtrise de la gestion des deniers publics. Mm Je mhm. pense que loolu mooy objectif bi. Mhm. waruñu génn euh, objectif. waaw le dernier élément. bon ça il faut que les gens quand même euh, qui dirigent prêtent attention mooy li mu wax sànq gis nga pourquoi la bonne volonté échoue chez nous c'est aussi parce que ku ku jiite day defe na moom moo war a régler lépp. Mhm. dëgg la. gis nga gouvernement bi am na pàcc am na wàllam mais assemblée dafa am wàllam. Mhm. c'est-à-dire que pour moi euh, s'ils veulent vraiment rompre s'ils veulent vraiment rompre c'est que le président de la République il a son chef de gouvernement am nañu seen exécutif c'est eux qui définissent la politique qui la mettent en œuvre mais le contrôle de l'Assemblée, le contrôle parlementaire, il faut qu'on arrive à ça. C'est-à-dire IGE, c'est des fonctionnaires. ñoom lu ñu mën mooy saytu jox la sa rapport yaa xam nag loo loo ci def Cour des comptes c'est la même chose bon les autres euh, organes de contrôle c'est des techniciens c'est des administratifs mais par contre l'Assemblée c'est un pouvoir Assemblée mën na la wax ne yow euh, par exemple la la toutes les lois passent par l'Assemblée. Mmh. Pour décaisser, bah, c'est l'Assemblée qui vote les finances. Mais mm-hmm. le pouvoir législatif, s'il n'entre pas dans le contrôle du gouvernement, on aura une défaillance. Parce que mm-hmm. président bi lu mu wax loolu lay am premier ministre lu mu wax loolu lay am et il y aura pas de contrôle du législatif. Et pour moi, il faut aller jusqu'au bout de la rupture. cest à que euh, euh, lu ñuy wax la bonne gouvernance mmh. c'est la séparation des pouvoirs des pouvoirs su président Diomaye bu gën a une véritable rupture c'est que il faut qu'il accepte la séparation des pouvoirs même la justice mmh. ça lu ñuy wax audité nii rapport yi c'est pas au, au premier ministre de dire à la justice qu'est-ce qu'elle doit faire mmh. il faut libérer la justice qu'on publie les rapports maintenant si la justice euh, a les rapports elle peut s'autosaisir pour, pour moi, c'est ça l'enjeu, enfin un des enjeux, c'est que la justice soit indépendante, mais aussi que le Parlement joue son rôle. Ouais. Parce que quand même... Euh, Autant... Encore faudrait-il que le Parlement, comme a dit Honorable, ñoom ñu ñu xool les les les documents di ko lire mu bañ a nekk juste ils sont là juste pour voter. Mais loolu c'est il y a un lien, c'est-à-dire que si tu as des parlementaires qui ouais. sont pas formés qui connaissent pas la loi, qui connaissent pas l'État, qui connaissent pas l'administration. Mais ça quand, ne peuvent pas contrôler. il faut aller vers le profilage. c'est un problème mm -hmm. au niveau du profil des parlementaires. Mm -hmm. L'administration, c'est pareil. Mhm. Pour moi, honnêtement, on a de bons inspecteurs. Mhm. les, les cours de contrôle, là, ils sont, ils mhm. Mais l'administration, elle est politisée. trop et loolu loolu euh, loolu tax ma ne la sànq. Hmm. bon j'ai bien aimé quand même ils vont faire des appels d'offres pour certaines. Euh, ça, ça, certains postes mais ça il faut aller euh, au fond. et faire des par exemple l'eau. Ouais. il faut aller au fond. l'eau mais on peut pas confier ça à des politiciens. une société qui gère l'eau qui gère l'assainissement. Mm-hmm. wala mm qui gère. euh, je sais les, les, les gros, gros, mhm. Mais on ne peut pas confier ça à un politicien. Mhm. a toujours, les gens de l'administration territoriale encore en grève. Hein. <laughs> C'est le problème. Bah, quel lijanteegu ko. Eh, ba léegi kenn lijan lijanteegu donc euh, et le président qui appelle aussi qui ministre à préparer la tenue de la journée du dialogue national le 28 mai sur le thème. prioritaire de la réforme et la modernisation de la justice. waaw il, il est en train de préparer les, réformes sur la justice parce que parce que xam nga wane woon na ko ci commencement doon wax léegi waaw début que mm. ñoom suñu ñëwee ils vont faire beaucoup de réformes mm. mais heureusement que mi ngi mi ngi mi ngi ci mi ngi ci dynamique bi mu nekkee woon dans le cadre de la réconciliation nationale mm. parce que aussi le fait de retenir parce que aussi il est dans l'orthodoxie parce que li fi li fi li fi nekkoon te baax daf ko fi bàyyi parce que la journée du 28 aussi a été retenue par l'ancien président de la République mu retenir ko il est dans la logique de la réconciliation nationale hmm. que les gens parlent parce que mënoon na tëju ci comme ni ko gars yi defee tëju defar proposer ay réformes mais hmm. aujourd'hui il a pensé convoquer un dialogue national sur les réformes de la justice pour boole ci tous les acteurs et cette fois je pense que acteurs yëpp dina ñëw uyu si pour le pour pour que réforme yooyu mën a continuer parce que aussi nga président de la République boo fal il faut qu'il ait l'accompagnement de tous les acteurs su ko deful du réussir qu'il soit politique ou euh, judiciaire ou social et, et, et autre suñ ko deful du mun a liggéey normalement et il l'a compris il l'a compris parce que il a rencontré le le tase naak le président de de l'Assemblée nationale ñoom ñaar waxtaan nañ parce que am na am na loo xamante ni euh, séparation des pouvoirs mun na am mais war nañ mun a waxtaan ñoom pour mën a yenn tension yi am au niveau de l'Assemblée nationale parce que lui il a des choses à faire passer à l'Assemblée nationale te xam na ni il n'a pas la majorité donc il mu mun a waxtaan ak ñenn ñi pour mun a faire passer certaines choses parce que il faut préparer le discours de politique générale il faut préparer euh, la loi de finances rectificative parce que il faut pas bu ñu fàtte ni budget bii nga xam ni moom la ñu moom la ñuy doxalee nii du du son budget puisque am na ay yu bees yu mu yu mu mettre en administratif. su nekkoon budget sax il est obligé. il est parce dès lors que BP a reporté le. voilà le début de l'exploitation du gaz des gaz il faut euh, euh une loi de, de, de financement rectificatif donc loolu il faut mu am ci l'accompagnement de de l'Assemblée nationale. maintenant c'est vrai le sensationnel est là et je pense que déclaration yi mooy tax peut-être nit ñi di jàpp loolu. mais je pense que l'audit est est bien normal par rapport à un nouveau gouvernement maintenant nag attentes yi dafa bari. audit bi audit bi bu normal aussi Adama. Hmm. il faut que ñun li li doyen wax léegi dans leur communication ou bien même ñu xool nan la ñuy communiquer ak population parce que il y a certains qui sont dans un esprit de vengeance de xuloo de de de de chasse aux sorcières entre autres ce sont des mots yu xaw diis yoo xam ne bu ko Sénégal bi déggee day diis ci moom nga quand tu soo toogee ci communiqué audit c'est nga soo toogee ci communiqué officiel d'un conseil des ministres tu parles de lanceur d'alerte ak ni koy nit ñi di déggee. entendement boobu du baax c'est-à-dire tu parles de d'une loi parce que balaa ñuy wax laa nu date dafay dafay proposer loi bu war a dem assemblée nationale aussi pour ñu protéger ces lanceurs d'alerte maintenant qui sont ces lanceurs d'alerte là. qui sont-ils c'est ça. profil la war a mun a am parce que pour protéger une personne da xam ban type bu personne la et qui doit être lanceur d'alerte. une personne neutre boo xam ne farul fenn. xam nga. c'est-à-dire mën nañ créer ay situation yoo xam ne. et de de de non non ça peut <laughs> en réalité cette histoire de lanceur d'alerte. Mm. je je suis très nuancé là-dessus. Ouais, c'est comme moi vraiment. Euh, pas compris que ce soit la priorité aujourd'hui du gouvernement parce que les deux premiers textes de loi sur lesquels ils se sont penchés c'est euh, des pouvoirs du Premier ministre. et loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Pour moi, c'est c'est vraiment pas je m'attendais pas à, à, vraiment en termes de de mmh. priorité, pour légiférer. Mm -hmm. Parce que les lanceurs d'alerte euh, si les gens se souviennent en 2019, je pense l'OFNAC en avait parlé. Mm -hmm. L'OFNAC avait fait dans son rapport une recommandation sur euh, la protection des lanceurs d'alerte. Mais les lanceurs d'alerte ce sont des fonctionnaires mm qui sont dans des services okay. et qui font de la délation. Mmh. est-ce que c'est une délation utile est-ce que c'est une délation positive est-ce que ça sert etc un lanceur d'alerte n'est utile que dans un dispositif où le contrôle ne permet pas d'arrêter les dysfonctionnements il mmh. n'y a pas de lanceur d'alerte à Dubaï, il n'y a pas de lanceur d'alerte dans certains pays où il y a, en Norvège, il n'y en a pas. Les, les gens maîtrisent ouais. les, les, les, mécanismes pour empêcher qu'il y ait de la corruption, mmh. pour empêcher qu'il y ait des détournements. Mmh. C'est si tu mets en place le dispositif de contrôle, les procédures et que les choses sont respectées, tu n'as pas besoin de lanceur d'alerte. Oui, quand même. Quand quelqu'un maintenant si tu attends si tu donnes à quelqu'un plusieurs milliards et que tu attends dix ans après pour pour vérifier qu'est-ce qu'il en a fait, bien sûr que ce, quand vous allez arriver ce sera trop tard. Mmh. Et je dis il faut que ñu def la différence entre reddition des comptes et récupération d'argent. Hmm. On ne récupère l'argent ne se récupère pas hein. on a vu avec euh, Macky Sall. Pendant des, pendant dix ans, ils ont couru, ils ont couru derrière, derrière des centaines de milliards qu'ils n'ont jamais vus. Mm-hmm. C'est-à-dire quand l'argent entre dans certains circuits, vous ne les trouverez plus jamais. Vous allez payer des avocats, vous allez perdre du temps, de l'énergie. Moi, ce que je dis, quand on vous donne quelque chose à gérer, c'est vrai, il ne faut pas faire table rase du passé. Il faut mm. analyser le passé pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui et préparer le futur. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est mettre un dispositif mmh. procédural qui empêche mmh. qu'il y ait corruption. Par exemple, aujourd'hui, si on ne veut pas que le policier dans la rue prenne l'argent, mais on digitalise. Qu'est-ce qu'on attend ils sont en train de le faire, mais ce n'est pas, déployé. Pourquoi le Sénégalais euh, doit se rendre forcément euh, dans un bâtiment d'état civil pour demander un extrait de naissance. Oui. Aujourd'hui que tout le monde a euh, un terminal entre ses mains, peut-être qu'il y, y, en a d'autres qui ne l'ont pas, ils, ils iront. Mais au fur et à mesure, on pourra y arriver. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour empêcher le contact humain, parce que c'est le contact humain qui, qui favorise la corruption. Ouais. Oui. Maintenant, sur les grands projets où les gens font des détournements dans, les, dans le BTP et tout ça, et ça, mon vieux, les gens savent comment ça se passe. Mmh. Il ne peut pas y avoir de détournement dans ces trucs-là s'il n'y a pas collusion. Mmh. Et donc, si on met en place les dispositifs qu'il faut, ça ne, ça, ne, ça ne passera pas. Donc, moi, je pense que il faut qu'on sache faire la différence entre les vrais problèmes et les fausses solutions. Les vrais problèmes et les fausses solutions. Il faut qu'on sache faire la différence. Mmh. Pour moi, vraiment, protéger les lanceurs d'alerte c'est pas une priorité pour notre pays mhm. la priorité des priorités c'est le panier de la ménagère oui. c'est la priorité des priorités ku ko waxul euh, da ngay noppi lu la neex mais sénégalais yi ils ne mangent pas à leur faim ouais. sénégalais ils ne mangent pas à leur faim benn repas de moo am léegi ci kër très très très très fi ñu jëm nii suñu suñu réglé wul yenn problème yi ça va être encore beaucoup plus grave. Mm-hmm. donc il faut qu'on trouve les mécanismes surtout que addina bi ci boppam moo jaxasoo il faut qu'on trouve les mécanismes pour que mm-hmm. les Sénégalais puissent manger à leur faim. Mm-hmm. cette souveraineté alimentaire là peut-être qu'elle va arriver mais ça, ça ne va pas arriver d'un seul claquement de doigts. maintenant il faut trouver les mécanismes. est-ce que ce sera des subventions encore est-ce que ce sera des baisses de taxes est-ce que ce sera des TVA qu'on va enlever à gauche à droite ah oui oui non de toute façon pour électricité bi subvention bi le 2 avril la jeex. jeex électricité bi jeex en tout cas daal en tout cas nous li ñu leen di xaar mooy li ñuy wax le temps est court pour eux pour le nouveau gouvernement les gens dañu dañu dañu yàqamti dañoo yàqamti yàqamti. Ah, parce que dañoo il faut que ce plan d'action soit. soit opérationnalisé oui, rapidement. nit ñi dañu yàqamti nit ñi dañu yàqamti les gens ont besoin de manger comme vous avez dit à leur ils ont besoin de am fu ñu dëkk un toit fu ñu dëkk Ablaye Wade avait un peu réussi n ak yenn yenn logements sociaux mais fii c'est des logements sociaux yoo xam ne boo ko bëggee jot sax c'est mais apport bi nga war a indi amuloo ko. mais mm, mm. boo nga wuti benn 1 million dem def ko dem jënd ko terrain que nga dem logement sociaux boo xam ne on te demande un apport de 10 millions. Mm. foo koy jëlee. logement sociaux kay warul dépasser sax amatul <laughs> amatul donc foo koy jëlee c'est c'est sonal nit ñi lay doon après quand on nous parle des lanceurs d'alerte entre autres je pense que sénégalais yi d'accord bëri nañ. ñu d'accord pour côté boobu noonu c'est pas une maa ngi nuyu Babacar Mbaye Mouskade euh, bu Karim Wade il me dit euh, je ne suis pas pour la protection des mieux mieux vaut protéger les journalistes d'investigation <laughs> voilà. qui dans le milieu médiatique rivalité rek lay indi dans l'administration publique et parapublique loolu la te bëri xam nga xam nga lu ci garaaw sax da nekk ci administration doo xam kan mooy lanceur d'alerte bi mu ñëw jaxase jaxase service ba loolu lay wax li ba c'est-à-dire xam nga wax na délation hmm. dafa graaw c'est-à-dire moi j'ai un problème avec toi ma dem sosal ma dem sosal la mais mais waxuma lanceur d'alerte mais loolu Sénégal fii. moo tax ça va encore am ni ma ma ma phrase comme je dis souvent on a un problème de culture. problème. on a un problème de culture bokkul ci ñun doyen bokkul ci ñun ñu da ngay dëkk si koñ bi sax gis kenn koo xam ne day xëy rek waa ji neexu ko rek mu jiiñ ko. siif na sama doom wala lii ñu yóbbu kaso ça ça ça c'est nous léegi nag boo ñu dugalee ci beneen circuit beneen carcan boo xam ne nit ñi taluñu loolu nit ñi courant la ñu bëgg mu doy mm. il fait mm. ndox bu doy ñëpp que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable comme ils l'ont dit on attend de voir mais quand même dafa am leneen loo xam ne moom la nit ñi gën a soxla mooy qu'on puisse bu ñu xëyee borom kër gi xam ne man su ma yoree mille francs mën naa cee dundal sama njaboot ci añ ak ci reer dëgg la les gens sont hyper fatigués gis nga gis nga les problèmes c'est comme ça qu'il faut les poser doo ñëw c'est un problème de communication comme disait doyen am na yenn français yu compliqué yoo xam ne boo ko waxee sénégalais dañ naan wax fi mu ne nii même lu may lire conseil des li ñuy wax nii man intéressé wu ma. oui oui man je propose sax que ñoom communiqué bi suñ ko liiree ci tubaab ba pare ñu ñu tekki ko. ci non bu ko waxee ci wolof communication bi daal nañu fexe ba li ñu daloon. ñu dal ñu lu bëree bëri bëri bu mu leen dal ñoom parce qu'ils sont assez jeunes pour mun a waxtaan ak population bi te dund nañ yenn affaire yoo xam ne mën nañ jàkkaarloo population ne leen ah ñun kat ceeb bi lii la doon jar dañoo bëgg wax dëgg yàlla bu ñu defee nii ak nii ak nii mais mais mais mais loolu ceebu Sénégal bi ceebu waalo bi. Hmm. bu njëkk lañ ko doon bañ naan day am ay xeer ak day kii mais baax na léegi dañ ko defaraat bi nga xam ne nag moom la ñu am comme ressource ñun nañu fexe defaraat loolu ba nga xam ne sénégalais dinañ ko mën a ko mën a consommer mais ñun ñu consommer li nga xam ne moom ñun moom la ñuy defar parce que day xaw a manqué un peu qualité dafa am benn rythme de vie boo xam ne sénégalais yi tàmm nañ ko ñun itam ñu yar suñu bopp mais ñoom itam nañ ñu proposé nañu yar suñu bopp ñun ñun nañu yar suñu bopp ñun on a un niveau de vie très élevé trop Sénégal mhm. on a un niveau de vie très élevé mhm. ndekki la añ njogoon a reer tout tout ça amatul léegi ci àdduna les gens dañuy jéem a dañuy jéem a dajale li ñu am xaw a xool naka la ñuy def yar seen bopp doyen non non on n'a pas parlé de l'élargissement de l'assiette fiscale hein après ñu ñëwaat ci. waaw waaw <laughs> donc c'est-à-dire que problème bi ñu am mooy que bon tout le monde euh, ñëpp xam nañu la la direction globale du président de la République et du gouvernement. Mhm. mais euh, la la difficulté bu ñu commencé junjun yi c'est que euh, on a un plan d'action qui peut-être euh, les actions en perspective les gens discutent sur. qu'est-ce qui est priorité qu'est-ce qui n'est pas priorité mm -hmm. bon donc ça dafa laaj gouvernement bi am peut-être une écoute pour réajuster le plan d'action mm -hmm. c'est comment arriver à faire comprendre aux Sénégalais que dans un an wala dans deux ans voilà les priorités du gouvernement je pense que loolu il faut que euh, le gouvernement communique pour nit ñi xam euh, les grandes priorités du chef de l'État mm-hmm. ah, sur les deux ans deux ans et demi bon maintenant beneen difficulté bi ñu am avec la majorité je pense que c'est vrai que aussi euh, la politique on peut pas inventer la roue. Mmh. Mmh. y a des choses yi nga xam ne même soo nekkee opposant tu as le pouvoir euh, il faut que tu aies une stratégie. Mmh. ah ñoom ils ont dit juste que c'est le projet PASTEF qu'ils vont mettre euh, en avant que euh, moom mooy seen ligne directrice. mais le projet PASTEF il faut qu'il trouve euh, une cohérence pour mu am pour mu nekk une stratégie le, le projet PASTEF c'est c'est vague. que mu génn que mu que mu dindi PASTEF mu dindi mu jóge projet dem ci stratégie. mais mais nécessairement. c'est ça le projet PASTEF c'est pour le PASTEF en mmh. tant que parti politique. Mmh. le président de la République va s'inspirer du projet PASTEF. Mmh. mais pour que nga am inspiration Pastef bi il faut nga état nga am une stratégie de l'état mm -hmm. l'état ce n'est plus le Pastef mm mm-hmm. donc stratégie bi la ñu la ñu gisgul euh, clairement c'est ce qui fait que on a l'impression que bon le gouvernement tâtonne que le gouvernement ne voit ouais. pas clair il prend pas en charge les questions il n'y a pas d'articulation mm-hmm. mais ça c'est des critiques pour les régler il faut de l'écoute mm-hmm. il faut de l'écoute pour pour moi euh, honnêtement euh, le, le gouvernement a intérêt à à mettre euh, un coup d'arrêt mm-hmm. pour dire que tey ci la priorité du gouvernement c'est la déclaration de politique générale politique mm-hmm. Mm-hmm. gis nga lu ñuy coow nii yëpp yëpp il faut que Ousmane Sonko mën a am une déclaration de politique générale mu dem assemblée. Ouais. l'assemblée acte. Mm la politique globale du, du gouvernement. Je, je pense qu'ils ont intérêt à recentrer tout ce qu'ils font là autour de cette déclaration-là. Bon, maintenant, il y a les urgences. Il des urgences. il faut qu'ils essaient d'avoir, pourquoi pas, un conseil interministériel sur les, prix, ou sur les denrées de première nécessité, mhm. ou sur l'eau, sur tous les problèmes qui vont arriver dans deux, trois mois. donc il faut un plan d'urgence surtout que mhm. y a la tabaski qui approche. bien le plan d'urgence il faut mhm. que ñoom ñu ñu form ñu formaliser le plan d'urgence xam nga urgence c'est que là dans trois mois je dois trouver les réponses et ça il faut que eux ils que urgence bi mënul xaar. urgence c'est urgence. mënul euh, donc il faut combiner le plan d'urgence et la déclaration de politique euh, politique générale le point particulier qu'on a ici, c'est que on a une forte attente. Mmh. Mmh. Mais l'attente, ça se gère. la question de l'eau. Mais il peut pas, on ne peut pas régler ça dans 5 ans. Mm-hmm. C'est sur ans, 15 ans qu'on va régler la mm-hmm. question de l'eau. Il faut une électricité. Bah, l'éducation. tous ces grands secteurs stratégiques là il faut dire la vérité au peuple que que l'urgence je m'occupe de l'urgence mais les questions stratégiques ben ça va il faut pas rêver que je règle la question de l'emploi <laughs> non hmm. mais mais ça ça demande la vérité il faut hmm. dire la vérité à à, à sa population mmh. euh, et maintenant euh, s'ils adhèrent c'est ça l'enjeu de la stratégie hmm. S'ils adhèrent à la, à la stratégie, que dans cinq ans, voilà notre cap. Mmh. Là, c'est sûr que vous allez travailler les cinq ans avec une stratégie. Mmh. Tu gères les, les, urgences, mais en disant aux, aux Sénégalais bah, qu'ils ont une responsabilité aussi. Hein. Ouais. C'est pas Euh, faire croire que Diomaye dina régler problème Sénégal ah je je pense que. toog muy dox boobu nag mooy toog muy toog ngi xaar président boobu mooy toog muy dox. loolu amul il faut c'est ça il faut communiquer. il faut communiquer Adama. parce que soo ko deful rek. lii ñuy wax nii dalay dal. ba da ngay wàcc ci niveau bi sax. da ngay ci niveau population. xam nga xam nga nous sommes dans république y a y a les moments de communication du président de la République et c'est des moments purement solennels yoo xamante ni pour mu tenir certains discours il faut attendre que ce moment-là. maintenant les Sénégal dañuy xaar la déclaration de politique générale parce que mooy joxe les grands axes les orientations. Hmm. parce que tant que loolu amul. mënuñu xam fan la ñu jëm exactement je pense que le premier ministre daf ca war a focaliser wu. concentré sur ses, sur sa déclaration de politique générale. Mm-hmm. maintenant sookul sookulu Sénégal avec le gouvernement c'était le plan Sénégal émergent ñoom ba ñu ñëwee dañ ko dindi ils ont mis en place le projet. Mm-hmm. pour man c'était très pourquoi parce que ci ak plan Sénégal émergent dafa am ay ay ay si signé dafa am ay protocole yoo xamante ne état bi def na ko l'état du Sénégal ah je ne parle pas du pouvoir de Macky Sall je parle de l'état du Sénégal. parce que a été mu jël cumul bi moo joxe programme Sénégal émergent su ñu bëggoon affaire bi gaaw baax baax dañu waroon jël le projet parce que programme Sénégal émergent am na su lu ca baax mm-hmm. nga def la somme de ces deux choses pour am une vision claire de ce que tu vas faire d'ici parce que le le PSE c'était dans la d'ici l'an 2035 le cadre de la planification mënoon nañ am une autre vision qui dépasse l'an 2035 pour un pour un programme national boo xamante ni day gérer le Sénégal mais soo ko tegee le projet parce que le projet c'est pas éternel ay problème la lay andil parce que ñi ci àndaloon duñu duñu du ñu ñëw dugg ci biir soobu ci biir mm. parce que yow yaa ko gëm mooy le doyen wax c'est le projet de PASTEF c'est pas le projet de la République du Sénégal parce que aujourd'hui certes c'est le c'est le PASTEF qui au pouvoir mais qui gère une république ñoo xamante ni dafa bëri ñoo xamante ni ñi ngi ca nekk te bokkuñu ci ci ci projet boobu nga donc il faut. ce n'est pas le PASTEF c'est la coalition Diomaye président. waaw c'est la coalition. c'est la coalition <laughs> voilà c'est la moi j'ai entendu quelqu'un mu topp di wax président Ousmane président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye de la République. c'est son excellence c'est le projet de la. coalition dañ ko tàmm en fait. voilà mais c'est son excellence il faut habitude yooyu sax moo topp ba ci kaw ba ci biir pouvoir bi. ils ont le comportement des fois des opposants e et ça c'est le il faut le comprendre. noonu ngeen meloon bi ngeen doog a ñëw. waaw moo tax de apprentissage la <laughs> voilà moo tax ma ne la apprentissage la. noonu ngeen meloon. parce que ba ñuy doog a ñëw on était dans la dénonciation. yéen vous étiez la chasse aux sorcières. non non non moom laa wax c'est-à-dire. loolu moo leen tàddeeloon. xam nga xam nga il. président Macky Sall li ko on peut le dire aujourd'hui la il au au au concept qu'on utilise parce que quand on dit état des lieux c'est différent d'un une république doit faire l'état des lieux un gouvernement doit faire l'état des lieux soo nee audit dañ naan da ngay jàpp nit parce que loolu mooy entendement parce que le sénégalais comprend au premier degré audit de loolu lañ ci jàpp moom est-ce que tu comprends parce que le sénégalais comprend au premier degré mais soo nee état des lieux bokkul ak audit erreur bi nga xam ni moom la moom la pouvoir Macky Sall defoon ci début gouvernement gouvernement am mu andi woon tâtonnement yeeg yenn yi moom <clears throat> moom moo nekk di feeñ nii ah parce qu'on n'utilise pas les mots qu'il faut l'État le pouvoir de Macky a perdu presque une année par rapport à la question de la CREI et parce que le 26 septembre lañ ko démarré. boobu de dañuy topp Karim est-ce que yaa ngi comprendre donc c'est des yoo xamante ne fait perdre du temps. à l'État du Sénégal les corps de contrôle ont déjà fait le travail l'état des lieux sur la gestion hmm. et ils le feront obligatoirement maintenant libre au président de la un président de la élu mun na ñëw rek toog démarrer bàyyi les corps de contrôle parce que d'ailleurs il l'a dit il a demandé à l'inspection générale d'État de continuer à faire les travail de, de de contrôle et et, et des de contrôle. par rapport à cette situation de la présidence loolu c'est une obligation jarul sax mm. demander. parce que mm. l'IGE doit faire son travail warul xaar sant ko ko. Cour des comptes doit faire son travail warul xaar ñu sant ko ko <laughs> xam am loo xamante ne nag ci communication la nag dem ba ci nekk populisme. te su su nekkee gouvernement nag dafa taxawee taxawaayu populisme. égratigné na sax yéen kii assemblée hmm. donc par rapport à cette situation il faut ñu xoolaat comportement sur le plan de la communication parler juste et vrai mais amaat beneen taxawaay boo xamante ni day tax nit ñi amaat confiance parce que su nekkee dañu jëm ci lanceur d'alerte dañu jëm ci leneen ak leneen nit ñi dañuy commencer ragal. te suñu ragalee yaakaar bi ñu am noonu day dem. yaakaar bi kese dañ lay bloqué ku nekk da ngay bloqué li nga am toog. di xaar voilà toog cest à su boobaa dëkk bi du dox. fi mu ne dëkk parce que c'est pour l'intérêt la République du Sénégal il faut que ñoon ñoom it ñu nangu jege ñi xam ni peut-être am nañ expérience dans le cadre de la gestion et autres ñu mën leen ah, accompagner pour ñu mën a réussir. ils ont bien commencé ah ils parce que ñu ngi commencé xool ñenn ñi. di waxtaan ak ñenn ñi am ñoo xam ne wóor na lañ ne ñii mën nañ liggéey ñoom ci état bi mais ils seront obligés de le faire. voilà non de toute façon c'est ça qui. ils sont obligés de la faire la performance vient de là. d'ailleurs dans le choix rationnel et réfléchi des hommes. parce que si tu veux être performant et que nga ne man ki ma déggoon rek laay àndal pour liggéey. Hmm. bu boobaa tu. tu passes à côté. ce qui est clair c'est que aujourd'hui bon quand tu regardes sur le papier c'est un excellent gouvernement. Mais moi, je dis très souvent aux gens, faites attention aux technocrates. Parce que le technocrate, il a, surtout les académiciens, ils ont <laughs> dañu am dañu am benn défaut. oui c'est la suffisance. mooy xam. donc du ñu déglu généralement seen collaborateurs yi dañuy ba bon pas généralement très souvent dañuy ñëw ak seen propre solution. Alors que ce sont les directeurs qui sont sur le terrain, Tout à fait. qui connaissent la réalité des choses, parce que la plus belle des solutions modélisées sur le papier peut être une catastrophe en application. Tout à fait. Donc, loolu quelquefois ay difficulté la ci technocrates yi s'ils arrivent à euh, passer ça je pense que ñoom ñëpp pour la plupart ils sont assez bien outillés dans les domaines où ils mhm. sont mhm. pour impulser euh, un excellent travail L'autre chose sur laquelle je j'ai réfléchi et je pense que ça peut être source de perte de temps, c'est cette histoire d'appel à candidature. Mm. Xam nga mm-hmm. Mm-hmm. appel à candidature, c'est une affaire d'entreprise. Mm-hmm. Ça coûte de l'argent. Ça coûte très très cher parce que ay cabinet ngay jël. Waaw. ñu def à moins que ñu def appel à candidature waya waya. <laughs> appel à candidature dëgg da ngay jël un cabinet. mu bind fiche de poste bi. Mhm. Mhm. définir ko nit ki lan la war a def lan la war a mun pour def lii et cetera et cetera nit ñi ñëw déposer. Mhm. cabinet bi analyser shortlister jox la nga def ay entretien ça prend du temps sa coûte de l'argent et on n'est pas là pour attendre. l'État c'est une continuité comme ni nga ko waxee sànq. c'est pas que président dafa war a ñëw mun na commencer président dafa war a ñëw commencer. Ah. Mm-hmm. warul xaar moi ce plan d'action là bi ñuy wax depuis le premier conseil de ministres il faut faire le plan d'action avant fin avril il devrait arriver avec le plan d'action mm-hmm. Mm-hmm. booy dem présidence de la république plan d'action bi dafa war a pare parce que tu as toute la documentation pour préparer ko comme ni nga ko wax les corps de contrôle le travail les documents sont Macky Sall quand il a mené le PUDC quand il a mené la CMU quand il a mené Puma mais c'est des programmes qu'il connaissait parce que a été dans le gouvernement mhm. c'est pas lui qui les a créés mmh. c'était des réflexions qui étaient là depuis dix ans oui, oui. il a tout ramené jël ko dugal ko ci yoonu yokkute dans le dans le cadre du Cap c'est tout mhm. loolu rek la donc booy yegg si da nga war a yegg si ak plan d' action bi maintenant plan d' action bi mu nga yegg si ay réalité nga réajuster mm-hmm. mais boo jëlee un mois pour defar plan d' action c' est un mois de perdu quand même mmh. la République ne peut pas rester à attendre pendant un mois mmh. donc, donc les, pour les plan je pense que c'est inutile. est-ce que du indi corruption. parce que je pense que je pense, Sénégal je pense que c'est inutile pense ah. que c'est inutile à dire les compétences. les compétences on les connaît. On les connaît, oui. Les on les connaît. C'est-à-dire, quand tu veux donner euh, la direction de la euh, SONES à un Sénégalais, xam nañ yan Sénégalais ñoo am compétence pour gérer la SONES et cetera et cetera bëri nañ fi. Mm-hmm. nga xool bu baax tànn ci kenn dénk ko liggéey bi. Mm-hmm. ñaari yëf nga soxla. mu am compétence bi nekk une bonne personne quand je dis une bonne personne quelqu'un d'honnête. Mm-hmm. loolu. soxlawul ñuy def ay appel à candidature pendant des c'est vrai il il l'avait promis mais il faut que ñu comprendre que ne aussi tout ce que tu promets dans une campagne électorale tu ne le mets pas en application il faut pas que les gens les prennent par la gorge ni yéen a waxoon lii lii ngeen def par force hmm. yaa waxoon lii réalité bi lii la la la faculté d'un être intelligent c'est de pouvoir changer ouais. quand la situation change hmm. si hmm. tu persistes ça que tu tout à fait. en tout cas mu doyen y a quelqu'un qui qui qui me dit doyen mu ngi wax encore ci lanceur d'alerte mais lui il parle plus des journalistes mais il n'y a pas mieux indiqué que les journalistes en leur facilitant l'accès aux bons dossiers afin qu'ils puissent la bonne information au peuple sénégalais mais en toute responsabilité en sans déformation ni parti pris loolu nag mooy problème bi il s'appelle Fodé Baldé il est à Kolda il est membre du parti socialiste et cofondateur du mouvement Surprise ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Kolda c'est ce qu'il dit donc beneen problème mu ngi foofu encore par rapport bu ñu waxee communication bu ñu waxee lanceur d'alerte entre autres on parle souvent des journalistes parce que sànq ba tey moi j'ai vu une presse qui a écrit ce matin y a une dame qui a démissionné parce que bon on a nommé l'autre euh, sama bàjjen Khady Diène ministre des sports l'autre elle démissionne parce que mosuñu jaaroo taal c'est une information non non non si si c'est c'est vrai. ça n'a c'est vrai mais c'est un fait divers en fait ça <laughs> la la lutte contre la corruption. c'est c'est une lutte très difficile et complexe. c'est honnêtement euh, le, président de la République doit doit marquer un coup coup d'arrêt. donc mmh. toll nii Sénégal. on a l'a dit et répété on a des, des agents qui sont bien dans mhm. tous les corps de contrôle on a des administratifs on a pour l'essentiel quand même une masse critique pour faire fonctionner notre État suivant des normes mm -hmm. corruption bi euh, c'est le mal c'est le mal pas seulement au Sénégal c'est un mal euh, mondial mais pour régler la question de la corruption je, pense que euh, lu gën li nga xam ne lii c'est à à la portée de tout le monde c'est que quand tu as un poste important tu tu mets en avant les compétences. Mm -hmm. les compétences techniques administratives et de gestion. Mm-hmm. mais ça on on le on le on, on, on le connaît. Mm que, les Sénégalais quand même ils sont assez euh, expérimentés en matière de choix des dirigeants le problème bi euh, c'est le courage d'appliquer les principes. Mm-hmm. c'est-à-dire choisir quelqu'un d'abord en fonction des critères de compétence. Mm. des critères de compétence avérés. Mm-hmm. loolu suñ ko defoon c'est le premier pilier contre la corruption. waaw mm-hmm. mais deuxièmement il y a la moralité. Mm-hmm. que que le choix de de quelqu'un qui va gérer des milliards. Bah, sur une année ou sur deux ans sur trois ans bah, il faut il contrôler sa moralité. troisième euh, acte euh, acte euh, important bi mooy li mu wax c'est-à-dire que les mécanismes de contrôle waruñu xaar ba nga détourné ba pare. Mm-hmm. non c'est tu as le profil tu as la moralité toog nga mais balaa at bi di jeex dañu lay contrôler ñu xool affaire bi naka lay demee tous les trois mois tous les six mois. chaque année mais c'est mm. périodique le contrôle. Mm-hmm. loolu moo tax audit ça fait partie de la gestion. Mm, c'est un outil de gestion. Mm-hmm. Tout pour mesurer est-ce que euh, foo toll pourquoi ça n'a pas avancé euh, je pense que pour man vraiment le, le gouvernement a intérêt à recentrer la problématique de la lutte contre la corruption mmh. pour dire que on met en avant les compétences la moralité et les il faut avoir maintenant des mécanismes de gestion et parmi les mécanismes de gestion on a nos corps de contrôle mmh. Mmh. j'ai pas vu en tout cas un président de la République dire qu'on a des mauvais agents de ah contrôle. Ah je n'ai pas entendu. Tout le monde est d'accord qu'on a de bons rapports de, contrôle. Donc, loolu c'est pour la, la, la, la, le gouvernement. Maintenant, li nga wax lanceur d'alerte, c'est la même chose. C'est qu'on est dans une confusion grave. Les mmh. gens ne comprennent pas c'est quoi lanceur d'alerte. les sociétés développées que ce soit les sociétés européennes, les sociétés américaines, euh, on produit des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas seulement contre la corruption. Mmh. Ouais. C est, c est, c est, tu alertes l'opinion. Très souvent public. même, c'est au détriment de l'État. Ouais. C'est au détriment de l'État. Dans le nom. Parce que tu as vu un dysfonctionnement qui remet en cause l'intérêt général. Mmh. Mmh. ou qui remet en cause l'intérêt d'un continent, l'intérêt de, la planète. Mmh. Tu, lances une alerte. Mais l'autre, c'est quelqu'un qui est compétent, mmh. qui est capable de faire une alerte. Mhm. Mhm. C'est n'est pas ce qu'on voit, les, les, activistes là. <laughs> bon, les... ah, non, ah, ça. non, bon, si les tu fais, pas un activiste. Parce que l'activiste, il est citoyen, bon, il euh, il est épris de paix, il est touché par quelque chose, par une décision, il se révolte. Mmh. Il dénonce. Mmh. Mais le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui documente. Mm-hmm. Et, et, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement aussi là comprenne pourquoi il y a une loi. Mm-hmm. Cette loi-là, elle vise des administratifs. Mm-hmm. Ce n'est plus l'alerteur de, de la société occidentale classique C'est l'alerteur dans ces sociétés modernes-là, il est expérimenté, c'est son job. Mmh. En général, c'est des, des, gens qui sont euh, bien formés, qui connaissent les institutions internationales, qui, qui ont de l'écoute, qui ont de l'audience. Mm. mais euh, pour nous, euh, la presse, mm. même la presse, elle n'est pas lanceur d'alerte. Si, euh, ah. Le lanceur d'alerte, c'est le journaliste d'investigation. Encore une fois, c'est pas du tout du journalisme simple. Mm -hmm. Parce que soo soo gisee. le euh, le journaliste d'investigation. en matière de corruption. Mm -hmm. il y a un consortium international. Mm -hmm. qui réunit tous les journalistes d'investigation. Mm-hmm. que ce soit Afrique Asie Europe euh, États-Unis euh, Europe. Mm-hmm. am nañu seen international. ñoom ils partage ils partagent su kenn mësul kenn mënul xalaat sax ñoom ñu dugal ci seen réseau une information qui n'est pas vérifiée. mais mm-hmm. mm-hmm. ça cest mën nga dugal fii léegi un milliard mu dem Mali eux ils sont au courant. Mm-hmm. dañ lay piste. Et ils, travaillent avec les renseignements généraux. Et les gens ils... ne les connaissent pas souvent. Ils ne peuvent pas mettre un visage sur ah. parce ah que c'est un métier à risque. Ouais. C'est un métier à risque. Hein. Le journaliste d'investigation, ce pas nos petits reporters là. <laughs> Non, c'est un métier. Tu choisis le risque hmm. de mettre à, sur la place publique bah, des de détournements importants, des dysfonctionnements ah, financiers. Des, bah c'est moi j'ai vu bëgguma la woon dagg sànq di doyen mais j'ai vu quelqu'un boo xam ne par exemple il se dit journaliste mais tout le temps quand tu regardes ses statuts te dit Adama Fall defal attention les gens vont venir vers toi parce que ça il accuse des gens en fait <laughs> en tant que journaliste quand tu donnes cette information là man par exemple man man je lui ai posé la question dama ne ko yaa ngi yaa ngi wax depuis un certain temps maa ngi dégg nga wax diw diw diw diw diw mu ne ma je suis sûr de ce que je dis j'ai les mais loolu c'est pas un truc je pense qu'on met sur un statut. wala nga def ça je voulais terminer. ça le journal d'investigation c'est un choix. ok donc lui n'est pas journaliste d'investigation. non mais c'est un métier. Ouais. c'est un journaliste qui est qui qui, est, a d'abord fait le métier ah. Ouais. mais qui est dans un domaine précis. C'est-à-dire que c'est une formation c'est quelqu'un qui a une formation dans l'économie dans la culture dans le sport mais il décide de s'investir. il a ce métier-là euh, dans le cœur. Maintenant, mmh. le journaliste euh, bon, euh, ordinaire, bah, il fait son boulot de journaliste. Il travaille sur l'information. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle euh, les alerteurs. Là. ah xëy na euh, journal d'investigation mën na mën na def de l'alerte Mais honnêtement, le, le, gouvernement a intérêt quand même à mieux communiquer sur cette affaire ah, d'alerteur. Mmh. Parce qu'il ne s'agit pas, comme, heureusement que tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que nous avons une affaire. Mmh. On n'est pas honnête. Bon, on, on, tout dissimuler. Mm-hmm. Et on croit que l'alerteur, c'est pour mettre en mal. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas ça du tout. Ce pas mm. du tout que... wala que je suis avec non l'alerte c'est quand il y a menace sur l'intérêt général mmh. que tu documentes et de le mettre soit de le dire directement au décideur ça peut le président le premier ministre le, mm-hmm. le, ministre mmh. maintenant fii euh, le cas Sénégal c'est-à-dire que dans l'administration sénégalaise ce qu'on a vu elle est trop politisée chaque de de président la République mm-hmm. ba bureau am lañ ko jël yóbbu ko kaso mm-hmm. parce que tout simplement il a fait un poste mais il y a combien d'agents de l'État qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent mm-hmm. Mm-hmm. ñooñu lañu war noonu bu ñëwee bu dee euh, alerte bu ñu war a posé mooy ñooñu baam nga nekk dans l'administration euh, yow euh, peut-être que tu es militant wala tu n'es pas militant mais si tu décides d'aller à l'encontre d'une décision qui menace l'intérêt de ton pays, l'État doit te protéger. Tout à fait. On doit pas te licencier parce que tout simplement, tu as donné une information. On espère que ça va changer parce qu'ils ont vécu ça. Donc, bah voilà, c'est ça. je pense qu'à ce niveau-là, il faut protéger les administratifs. C'est. Euh... Ouais. vraiment, on suit de partout. y a Mamoudou Lamine qui est Podor. qui dit je suis vos émissions qui me servent de baromètre de l'actualité salutations à doyen Mamadou Albert et à Adama mais il lance quand même un cri de cœur à Podorville des coupures d'eau à n'en plus finir le service public de l'eau n'informe pas les populations en tant que bénéficiaires donc beneen problème mu ngi noonu démb rek gis naa kenn ku koy waxaat ne coupure d'eau yi ñëwaat a repris ah a repris avec à l'électricité donc ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax monsieur Diop. xam nga xam nga période bii daaw. Mm. dañ toogoon fii doon wax waxi courant. Mm-hmm. waxu augmentation woyofal beeg yooyu. et bii passé on parle pas de l'augmentation du prix de woyofal on parle de coupure d'électricité maintenant on peut comprendre que peut-être avec. Euh, Euh, la demande qui est à l'offre peut-être mën na <laughs> mën na nekk noonu en période de chaleur. Mm-hmm. mais lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy wax rek mooy <clears throat> soo déggee nit ñi ni ñuy waxee mooy il faut un changement de paradigme mais tout en restant orthodoxe. Mm. parce que république aussi dafa am nu muy doxee. république dafa am loo xamante ni ay corps de contrôle ñoo ko moom. Mm-hmm. république dafa am loo xamante ni y a ce qu'on appelle les les renseigne les renseignements généraux. Ouais. on peut pas mettre un nom sur leur visage. non non non du et ils renseignent l'État ils ne les informent pas. Mm-hmm. fii lu fi état bëgg a xam da koy xam. un lanceur d'alerte kenn gënul gën kenn gënul le le le renseignement général. par rapport à beaucoup de questions. Hmm. par rapport a beaucoup de choses. administration foo ca dem direction générale boo dem yaa a quelqu'un qui représente le renseignement général dans cette direction générale. Hmm. et qui qui est là-bas comme un agent. Hmm. mais kenn mënu ko xam. parce que l'État aussi il est il est sécurisé il est informé. ak lépp loo xamante ne dafa donc le débat le débat war na mën a war na mën a féete feneen. aujourd'hui leur priorité devait être dans naka la ñuy régler la question certaines questions. mooy l'accès à l'eau les prix des denrées parce que cent premiers jours yi la ñuy xaar les prix des denrées et préparer l'appel à dégg nga ma l'appel sax. la tabaski pré préparer la tabaski. un conseil interministériel daal sera consacré à la préparation de la tabaski un conseil ministériel consacré à la campagne de production agricole coow li tamit bëri na côté boobu campagne agricole. cest à c'est vrai qu'ils sont dans l'anticipation. c'est vrai ah il faut nga gis yenn affaire yi muy muy muy am toujours les mêmes problèmes qui reviennent da nga ciy jàng. waaw da nga jàng et moi j' ñoom jàng nañu ci. parce que munuñu chaque année ñu am problème campagne agricole chaque année c' est un problème tabaski chaque année c' est un problème ñuy dund les mêmes choses dañuy dund xar yi di jóge dañuy dund xar yi nekk Sénégal ñi yar xar Sénégal seen ba cher na ay 1 million la ñuy jaayee. waaw waaw 700000 ak yooyu les gens sont obligés d' aller chercher ailleurs dans Sénégal le Sénégal transfère exactement 35 milliards en 15 jours. Ah vers la Mauritanie le Mali et le Niger. Ah <laughs> on a besoin de cinquante mille moutons. le calcul est vite fait. on pas cinquante avoir les c'est-à-dire un événement qui est connu dont la date est connue à l'avance. Mhm. on connaît les besoins. on connaît la date. Mhm. mais on le prépare. <coughs> on sait que chaque année on le prépare. Mhm. quand quand quand quand la Malaisie a voulu euh, développer le palmier à huile. oui ils ont appelé les Malaisiens ils je te donne cent à huile li ma lay laaj rek mooy nga toppatoo ko bu juree maa koy jënd. Mhm. l'État peut mobiliser tous ces jeunes chômeurs là en groupement. ku ci nekk ñu jox la tant d'unités de mouton charge à toi que mu nekk xaru tabaski dans un an. oui c'est une solution. c'est une solution. avec des prix ciblés ah mun nañu ko jaay sax. soixante dix mille soixante quinze mille. Ah, avec des prix ciblés. oui. c'est c'est tellement facile. c'est c'est c'est décourageant en fait. Ouais. de de de voir les gens. moi ça fait ça cinq ans que je parle de sa les collectivités territoriales s'en avaient emparé jël ko mm. comme seen projet mm. communes yeeg yooyu ñu waxtaan ci certaines communes on en a discuté mais après ils n'ont rien fait ku nekk da ngay bëgg def sa opération tabaski si tu prends les 557 communes du Sénégal mm-hmm. fu nekk nga def fa dispositif bi ci war pour que de façon euh, locale ñu am disponibilité bi war en mouton mm-hmm. Maintenant, les gens qui veulent aller acheter un mouton de 100 millions ou de trucs, ils vont aller acheter. Mhm. Mais le Sénégalais moyen, il achète un mouton entre 70 000 et 100 000 francs. Oui. Et ça, on peut le produire. Rien ne nous empêche de le produire. Rien. Mais suñu problème mooy que ne duñu planifier. ñun on est dans l'événementiel dañu xaar ba mu ne këtt ne jon ah, commencé ah. jóg di daw di xataraay. di ñaani xar la tabaski. la tabaski au Sénégal c'est une institution je nos gouvernants le savent mm-hmm. le jour où le Sénégal aura une forte pénurie de moutons de moutons la révolte sera sauvage mm-hmm. Mm-hmm. les gens ne supporteront pas ça ñàkk am xaru tabaski c'est-à-dire il faut pas que ñu caaxaanee ko. warul warul nekk stress. warul nekk stress. c'est chaque année comme je dis souvent. Korité chaque année c'est chaque année on connaît le besoin on connaît xam nañ naka la ñuy yare xar. quand même xam nga nag nous nous étions dans dans gouvernement boo xamante ni. su tabaski jotee rek ñu dem def tournée euh, luuma yi. sous région beeg yooyu région boobu xam na da andi. parce que loolu lañ fi fekk c'est une habitude. loolu lañ fi fekk loolu moo war a jeex nag donc rupture bi moo dafa war a dafa a. dafa war a am moo war a jeex li ñu war a organiser Adama Fall moo bëri ci dëkk bi parce que mënoo ñëw mënoo ñëw par exemple chaque coin de rue chaque quartier quartier bu ne nga gis fa cinq écoles par exemple cinq écoles yoo xam ne c'est maternelle la et autres yu téye xale yi cinq écoles dans un même quartier cinq mosquées cinq trucs c'est ça notre problème ci da ngay da ngay dugg ci benn koñ tabaski fii day am opération tabaski kii day am opération tabaski kii day am opération tabaski ñoom ñëpp ku ci nekk. xam nga jaayee nag lu la nekk. xam nga xam nga xam nga li mu wax. mais fan lañ jëm il faut organiser ce la question de l'auto-emploi. Hmm? ça peut la question de. c'est-à-dire au au démarrage. Wow. au démarrage l'État impulse. impulse après on les surveiller ñoom ñooy dugal seen xaalis. loolu loolu mën na ko régler. te dina dina toucher les cinquante cinquante sept cinq cent cinquante sept communes gis nga cette question de mouton là si on le règle <clears throat> on réglera la question des <clears throat> des denrées pour la tabaski parce que je me rappelle ah période tabaski lañ toogoon fii y avait des problèmes de d'oignon et de soble ak ak pomme de terre bañ doon wax Maria bàyyil soble bi ngay tudd chaque matin. Ah, man chaque matin moom problème loolu su nekkee def nañ ko pour mouton bi mën nañ ko def pour les produits qui d'accompagnent. mën nañ ko def hmm. lépp. mën nañ ko def ci lépp. parce que su ñu amee un an boo xamante ni dina mën a développer yenn yi Sénégal du dugg ci situation de pénurie wala du dugg ci situation de jiggaani mais il faut que l'État accompagne cette jeunesse là non il faut que la jeunesse accepte de le faire d'abord. bon te xam nga loolu lu koy andi. discours de vérité. discours de vérité et discours puis après incitation. voilà te xam nga il a la chance. incitation Adama aujourd'hui moi je te dis. Mm. je des champs à Kër Samba Gueye quand je vais là-bas il y a quelques deux mois là boo duggee ci àll bi tu vois les femmes s'activer dans leur champ d'oignon ñëpp ay bay soble foofu tu peux même pas imaginer l'activité économique qu'il y au Sénégal chez les femmes mm -hmm. euh, sans aucun moyen mm dire amuñu engrais amuñu dara lépp dañ koy ñefe dañuy dajale jënd benn potu semence ji dajale jënd engrais seddoo après bon ils, elles se débrouillent comme elles peuvent avec le circuit de distribution pour jaay mmh. mais elles s'en sortent tu peux pas de plus en plus c'est-à-dire boo boo boo jëlee jeunes yi toog Dakar di di. di ni ñu koy waxatee. toog muy dox. toog muy dox mooy borom naar nga yóbbu leen wan leen. c'est-à-dire da leen di yóbbu au début. nga wan leen. Ah, yóbbu leen au milieu yóbbu leen ah. à la fin c'est-à-dire bu gars yi jaayee saako soble treize mille francs am parcelle bu ndaw nii am un million deux millions. Hmm. bu ñu gisee loolu rek dinañ comprendre que ni fii njëriñ am na fi. Hmm. te njëriñ loolu sa ñaq lay doon. Hmm. c' est pas compliqué c' est. koy wax nii ça c' ko gisul voilà il faut que ñu gis ko. ñu dem et ça il faut que les gens aillent nag dans en profondeur dans le pays def ay reportages wane nit ñi paysans yi ni ñuy ñefee et tout et puis. xool naka lañ mën a moderniser tout ça mhm. Mhm. parce que problème bi encore une fois c'est l'eau mhm. problème foofu par exemple am na ndox dangay ngay gas nii am sayaan daal di arrosé mais am na zone yoo xam Sénégal tu vas à 70 mètres tu n'as pas d'eau donc yooyu yëpp état bi daf ko war a xool accompagner ci gars yi mooy indi souveraineté alimentaire boobu ñu doon wax de a deux mais moi je d'accord avec l'idée que c'est c'est possible c'est possible que ñu gérer euh, nos problèmes que ce soit tabaski wala yeneen euh, domaines yi maintenant il faut il faut éduquer les gens par l'exemple mm. je, crois que c'est ils, mm. ils n'ont pas encore euh, d'expérience mm -hmm. euh, vécue euh, vécue il, faut qu'on apprenne à découvrir les qualités quand même de ce peuple mm-hmm. parce que mm-hmm. les Sénégalais malgré le fait qu'ils sont fatigués mais c'est de gros travailleurs mm-hmm. mais amuñu amuñu la bonne direction. Hmm. je crois que comme tu dis euh, l'organisation moom. je pense que c'est notre faiblesse. genre de formation même les amener sur le terrain. pour ñu xool da ngeen di former en même temps on n'est pas bien organisé. merci beaucoup Dore. waay démb démb damaa démb damaa teel a tàggoo bañ ko ma wax dara tey dem naa jël naa deux minutes. waaw euh, kontaan. dafa hmm. daju daje parce que Moussa Laye bu Thiès nee na mi ngi lay nuyu. nee na waxal ma système Maria. maa nuyu. ñu ngi koy nuyu baax nee na li nga wax ci location bi tamit kontaan na ci yow. waaw léegi man xam naa mais na nañu wàññi repasse bi. repasse dafa cher waaw nee nañu wàññi repasse bi dafa cher quoi. <laughs> d' accord Adama merci beaucoup Abdoulaziz jërëjëf di remercier ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fépp à travers le monde entier noonu la ñu koy waxee di leen nuyu bu baax a baax di leen remercier euh, honorable merci encore une fois. merci Sister Maria c' un plaisir. c' est euh, partagé waxtaan. Mhm. xool euh, u Sénégal waxtaan ci ay solution mhm. di invité sénégalais yi rek ñu continuer ci dynamique waxtaan ak construction parce que dëkk bi noonu lay avancer. Mm. xiiroo beeg ngaayoo bi amul njëriñ. dans la paix la sérénité on construit notre pays. tout à fait merci euh, merci beaucoup honorable Théodore Monteil c'est un plaisir parce que li tax mooy man damay kontaan di toog ak yow tout le temps tout le temps parce que saa saa bu ñu toog dinañ jàngat lu bëree bëree bëree bëri ci réew mi rawatina ci li nga xam ne moom la doyen di wax ci assemblée nationale yu bëri parce que parfois dañuy wax nii rek ñun itam. di dem mais du ñu comprendre lu bëri en tout cas merci déjà pour la disponibilité merci à doyen Mamadou Sy Albert. merci merci à Adama Fall merci la régie merci à tous on se donne rendez-vous demain incha allah